sen trading and service ca boobaleb journal Manar Sall yëkkati kàddu naan nanu ma convoqué te nanu ma déglu nag ci nu mu gën gaawee ci direct news mu tuddee boppam otage source a ne Manar Sall kay jamono ji mer ba futt la def yëkkati tuuma jëme ci premier ministre Ousmane Sonko ndax nee na ko boole ci liste otage yi maanaam ñi mu bëgg a ci réew mi te Manar Sall ne teguñu ko fenn ndax amul benn notification bu ñu ma def ci ni ma yore woon li nu ma dénkoon Manar noppi naa ngir tontu ci lépp lu ñu ma laaj waaye itam pare naa pour dem kaso bu fekkee damaa am lu ma def waaye moom Sonko na xam leen mooy sénégalais yëpp duñu mi moo ko wax ne Sénégal koom-koom bi fi ne daa sooxe ba yegg ci lool daanaka léegi tey ñu nërmeel ñaareelu Dakar Presse ne FMI kay tableau bu ñuul kukk la peinture jox Sénégal lii quotidien ne li dëkk ma la ñuul kukk loolaa waral FMI waxee ni PIB bi yéeni cabinet ñu ngi koy séentu ci 6 pour doon séentu weeru juin FMI it gis na ne mesure budgétaire supplémentaire yee ñu waroon a def dara amu ca recette yi itam ne dafa wàññeeku dépense yi ñoom fa ñu ne woon ña fa maanaam la xëy di dépense dara wàññeeku ci waaye alal jiy FMI njàqare la amee ci réew meeg ni muy doxee yéenekaay bi ne joxoñ nañu faiblesse marge de liquidité wax nañu itam ci bor beeg ni nu ko lebee muy bor yoo xam ne bor yu gàtt la ba nuppi cher lool yéenekaay bi ne li des ci at mi it FMI ne bu mayiwul ci ay jafe-jafe la Sénégal di nekk koom-koom bi sooxe lool Walf Quotidien tuddee loola yépp tableau noiru FMI ci Sénégal ak koom-koomam yéenekaay bi sëgg ci koom-koom googa sooxeeg activité yi wàññeeku di laaj ministre de l'économie ana luy njariñam Bougane Gueye Dany naan laaj yi jarul muy bari mi FMI séentu li laas ci tuddee ko perspective sombre l'observateur gis ca njàqare gu rëy ne FMI saytu na koom-koomu Sénégal ak ni muy doxee la mu ca gis lu doy waar la waaye li gën a doy waar sax mooy li ñu dëkkmal ndax Fonds monétaire international nee li des ci at mi Sénégal bu may wul ci ay jafe-jafe yi neen lay ne ndax croissance maanaam koom-koomu réew mi ni muy màggee nanu ko doon séentoo dafa gën a yéex lool position budgétaire bi woyofal njëkki ci kaw askan wi danañu ko dindi loola mën lépp lu laal wàllu énergie maanaam courant yu xeetoog moom patron de presse yi ñoom léegi tey daa mel ni ñu jubóog état l'observateur ne réunion dox na diggante ministre des finances ak CDEPS gannaaw réunion boobu Mamadou Ibra Kane njiital CDEPS naan atum 2023 premier semestre 2024 état bor yi mu amee moo ëpp fuuf li entreprise de presse yi war a fay coow tasub assemblée nationale moom fayagul ndax opposition bi ba tey ña nga cay dal ci kaw Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye Abdou Latif Coulibaly ca lii quotidien ak yeneen yéene kaay naan lii Diomaye def dafa wone ne moom jébbalu na ci Ousmane Sonko te nangu na ko une soumission au PM assumée Les Échos ne booba jamono juróom-ñaar fukki parti politique def nañu coalition kuréel gu mag a mag ngir jàkkaarloog Diomaye ak Sonko yéenekaay ko yow la la Ba APR Khalifa Sall PS bi ne ñooña ñépp bokk nañ ca booba lépp kuréel laas ne kuréel googa la mu njëkk a nguur gi fi ne mooy datub élection bi mu jàpp moom képp loola waral juróom-ñeent fukki leader ak juróom-ñeent fas yéene lëngoo contesté booba lépp décision laas ne datub élection booba di fukki fan juróom-ñaar weeru novembre expert électoraux it ña nga koy càmbar yooyu jëm sax mooy parrainage giñ ci war dindi ndax yéene cabinet bu loola amee mën nañoo séentu liste yu dul jeex journal bay fàttali ñeen fukki liste ak juróom-ñaar ya ñu amoon ci élection législative 2017 moo waraloon président Macky Sall indi woon fi parrainage caution fukki million ak juróom yéene maanaam du nu mën a wote waxtu woowa Sud Quotidien ni ñu baree bari ci askan wi ña nga dëg ma li tiwaawoon wuy ji wooteb Seydi Hadji Malick ngir màggal juddug yonent ne tiwaawoon fi mu ne mooy célébé ndax gàmmu gi nu jàpp guddig dimanche jàpp altine l'observateur ne gàmmu gi sax daa alaa daw mi ndax liggéeyub jumaa ju mag ja yegg na ba tey jii la ñuy jébbal caabi xalif général des Tidianes bésub tey bi yéene kaay bi ne daa yemook anniversaire u génnuk àdduna maam da baax bés bi la jour xëy ci maam Maodo tuddee ko modèle prophétique dikk ci gàmmu géeg ni mu ko soseeg ngeexital yi mu am ci tiwaawoon ak jullit ñi yéenekaay bi ne koskaas ba ca tiwaawoon nag mbiram Cheikh Oumar Diagne tax lettre demande soutien yi mu doon bind présidence ren defu ko Baye Niass ak li mu def ci màggal yonenti beeg juddoom it yéenekaay booba nga cay wax dem ak ñun Kaolack jukkil ñu ci Baye international Sénégal Le Soleil naan booba jamono mi ngi bëgg am centre spatial am yéenekaay bi ne démb la ñu doon amal xew-xew bi ñeel màggal satelit bu njëkk bu Sénégal yóbbu ci jaww ji muy gaynde sat 1 njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye yéenekaay bi ne moo jiit woon boobaleeb xew-xew xamle nañu fa nag ne Sénégal ay satellite stationnaire yu gën a am doole bëgg rafetlu nañu it itam te sargal ingénieur ak technicien sénégalais yi def liggéey bu mucc ayib booba le quotidien naan aya ngay xeeñ ca parti démocratique sénégalais frond la fa journal ba yéegle ne Woré Sarr ak ñamu àndal ñooy dal ci kaw Karim Wade ca l'observateur am ñuy dal ci kaw Ousmane Sonko di ñaawlu ni muy doxalee te mooy lépp lu président Bassirou Diomaye Faye war a def mu yégle ko journal bi tuddee ko course à la primeur noppi ca loola yéegee appel vidéo bi Macky lii xew lépp nag mun leen booloo leen joxante doole nekk benn ñu taxawal coalition républicaine bu mag janoog ñii fi ne tey yii nekaay boobay ci xëtum ñu ne agression ba amoon ca aslem jàpp nañu ñaar ñu bokk ca ne ca almadi leen mbir moom féetee na boor ndax gang ba sûreté urbaine serne na ko yéeni bi ne taximaan bi la ñu jàpp ba ko enquêteur ya laajee ci xaalis bi wadee ci saagu kañu doon agressé te mu for ko daf koo weddi otoom ña des ca agresseur ba nag libération na ñoom ñëpp takk deri ràññee nañu leen ñu taxaw foofa ñun tey ñaanal leen kendal ak jàmm AGT News